wala aji fo xawaa kog beew na nde wala muminu aji gëm al muxlisu ji aji sellal jurtuqaa kuy boroom ragal yàlla isa qaama ndem jóg na ila kulli salaat jëm ci gépp julli in tabasa mu wàcc bi qalbihi ci xolam xan kulli amrin walis mépp mbir dunya wiyin muy ko jug àdduna wa kulli ma siwal maliki ak lépp lu dul buur bi te mooy yàlla mi aji moom almuxtawi kay aji làq nguur wa tarakate mu bàyyi adduna wa ma ak la nga xam ne nekk na ci adduna walam yakun te du nekk daltibaatin di boroomu gestu li shay'in jëm ci dara min himamin ci ay daa wax ne ku gëm yàlla dëgg-dëgg moom te sell te ragal yàlla du xalaata ree ci julli kay julli ree moom day nekk ku sàggana sàggan kuy foye rek julli gi julli gi soxalu ko julli gi ñoru ko waaye ku gëm dëgg dëgg te sellal te ragal moom bu jógee ba taxaw bay julli day génn ci xolam lépp àdduna li ci biiram génn ci xolam lépp lu dul yàlla akuk màggaayam fàtte àdduna ak li ci biiram te du geestu jenn jenn yitte jumay yàlla boroomam mu yux diru te muy teewal bil xal bi ca xol ba li jalaalillahi ñeel màggu yàlla rabbil xalqi kay borom mbindeef yi bi xawli xaq ci wax dëgg ja xataa yasira ba dana mujj xalbuhu xolam ba murtaidan di aju lox war taxabat te tiit war taxabat bakkan la ñeel ko xaw farada ngir ragal alkande min haybatil ilaahi ngir tëy yàlla tëy mooy wekk maanaam ragal gu ànd ku màggal mooy tëy jàll màgg na waxalaa te kawe jëlaaluhu màggam nga rabbu samawaati mooy borom asamaan yi alxulaa ya di way kawe ku gëm yàlla daal te sellal te ragal ko daal bu taxawee bay julli day teewal ci xolam màggaayu yàlla ba mujj xolom day tiit ak lox ndax ragal ne rek alkande mën naa ñëw ci moom ndax weg gu weg yàlla yàlla mu màgg mi loolu day tax rek mu ci defe ne alku na ba noppi wakaanate nekk cha'nuhu mbiram ka xawli xomara di mel ni waxi omar man omar ma nga xam ne xadd ta azara tuba yoo woon na bittuqaa ci ragal yàlla wal xilmi ak xam-xam nee ku gëm yàlla dëgg dëgg daal te sellal bu dee julli day mel nii nga xam ne moom la omar mii waxe woon omar nag nekkan ku ragal yàlla te amee xam-xam Omar boobu nag li sam xel di njëkk a jàpp mooy Omar ibnul Xattaab la waaye am na yenn saraa yu saraa aljawhara dañ faa bind Omarul Fóoti yu wax ne Omarul Fóoti lay wax ne moo wax lii mu lay bëgg a wax mooy wakkun nekkal isa daxalta ndéem tàbbi nga fi salaat ci julli ga te mis li shaxsin di mel ni ki jëmm taana duñ nekk na fi wafaati ci faatu te ne woon boo taxawee bay julli da ngay ànd akuk dal sa jëmm ne tekk mel ne yëgatoo dara ndax ku màgg gi nga xam ne moom nga taxaw ci kanamam loolu nag mel ne lu njëkk ñi daan leen dal bu mësaa taxaw di julli nañuy tekkee rale ak nañu dale day mujj sax picc mën na leen romb bëgg dal ci seen kaw ndax duñu xamante ba xam jëmm ji ak ruuxa ngi ci wala nekkatu ci waaw mu ne nag noonu boo dee julli noonu ngay teewloo màggaayu yàlla ba mel ni jëmm ji ak ru nekku ci ñu njëkk ñi nag noonu daan def ne fexeel nag di jéem noonu ndax nga man ko fa haadihi lii yi moom salaatul muttaqina mooy jullik waya dañu yàlla almukramina ña di ñuñ terale bil jinaani ci àjjana ya almuflixina ña di way texe nee na gu mel noonu ña ragal yàlla dëgg-dëgg te yàlla nar leen a terale bu ëllëgee ñu nar caa texe noonu la ñuy jullee loolu mooy seen julli wiin razaqanaa yàlla nanu wërsëgale arrahmaanu aj yërëme ji zuhdan dëddu àdduna wa tuqaa ragal yàlla wal am na ak róolu min kulil balaayaa ci mbooleem balaa yi war an ak yéegug daraja yi kawe ya loolu ñaan la daa ñaan yàlla wërsëgalinu dëddu àdduna ak ragal yàlla ak mucc ci mboolem balaa yi ak yéeg daraja yi kawe ya walay sa fii tabassumin déet muy nekk ci muuñ sujjóodum sujjóot wala ihaadat du caageenu baamu ayaa muriidu yow taalibe bi du julli muuñ rek moom bu fekkee ne bariwut sujjóot du ca war dara du ca war waaye nee nañu nag muuñ ya bu baree dañ koy jàppee jëf yu bari yoo jëf ci julli gi julli ga daal di yàqu moo tax mat naa teylu bu waax waxta feroo jéggale nañu bukka xaashiin jooyuk aj ragal yàlla ragal yàlla ragal tax nag mu julli du jooy jooye muy jooy mu am kàddu du tee ñu jégal ko ko kazaliki ni xalilu insaatin aji néewi xerawlu wala aji néewi déglu li muxbirin ñeel aji xibaar xusan na nga jàpp ba tey nee na julli dégg koy xibaar nga ne teg as mbir su gàtt di ko déglu loola jàll ci julli teg nga nga ne teg déglu ko as mbir rek du wàññi dara ba tey jéggalu nañ ko ba muy yàqum ku jóg mi rek xatay ni bàyyi ko ci ñaar rakk qabla an njëkk muy toog aw qabla tashahudin wala ci njëkk taaya zukki na jot miineef na ko wa yenta bi te mu yeewu mooy te mu fàttaliku qabla firaaxin ci njëkk teqalikoo suuf bi yeddin ci loxo wa rukbatin ak batiwoo yarji kon mu dellu ila tashahudi jëm ci taaya ja nee soo amee ñaari rakk ñu digalal la toog taaya nga ku jóg jëm ci ñetteel kon su fekkee ne teel nga koo fàttaliku te say loxoog say bëti moom da ngay laal suuf ba tey ba am na ca luy laal suuf kon nga delluwaat rek toog ndànk daal di taayu jóg jàll te loolu dara du ca nekk du aajow sujjóot ndax yëkk yi nga ne yëkk rek tàmbalee jóg du wàññi dara muy wala sujjóotu sahwi te déet sujjóotu jamooj fil ma'suuri muy nekk ca la ñu nettali li xifatul amri ngir waye fu mbir ma xalal mashhuuri ci la ñu siiwee ndegam da nga yëkk rek tàmbalee jóg waaye say loxoog say bëti woom tàggooguñu suuf ba am na ci luy la suuf kon ngay toogaan ndànk rek taaya te du aajo ngay sujjoot ndax loolu amul solo wa in yu faariqha ndéem dafa teqalikoog suuf damaa daa kon mu wéy wa sajara te mu sujjoot qabla salaamihi njëkk salmalam ba li nuqsaan ngirug wàññi li nuqsaanin warada koog rot na su fekkee nag ba nga amee ñaar rakka jóg nga ba say loxoog say dara lalutu ci suuf kon na ngay jàll rek jàpp ne bàyyi nga taayi digg su ko defee nga sujootal ko xabla salaam loolu nag boo dee jiite mën naa am ñu juum loola ci ndax gannaaw bu say loxo si bëti moom ko suuf xam nga da ngaa war a jàll waaye dañ lay sàbbaal bu fekkee ñooñu xamuñu ko buñ la sàbbaalee ba watuwut da nga dellusiwaat toog fekk da ngaa waroon jàll rek te xam ne jël nga taay di nga sujjóot xabla salaam wa in yëkkun ndeem dafa nekk nag rajaxa di dellu si bandali firaax ci gannaaw teqaliko suuf fa xukkumu ñaari atte la ci ka nga xam ne waxaa wattu na xam-xam su fekkee deman nga ba say loxo ak say bëti woom laa la tuddoon suuf ñu waxal la ne jàllal te sujjóot xabla salaam yow nag téewu laa dellu si toog taaya kooku nee na am na ñaari atte ndax benn jotugul a àgg ci taxaw jonn daal di dellu si ak nga dem ba taxaw jonn door a dellu ci nekk man naa am loolu moo koy def ñaari atte inkaana dem nekk na min qabli ci daal di ci njëkk ak yemoo mutlaxan ak nu mu mën di doon fal yastit na sujoot albaad yo sujootu baxde salaam fii maa ci la nga xam ne xuqiqa dëggaleef na ko su fekkee dem nga sax ba say loxo say bëti tul suuf waaye nag juddu la àgg ci taxaw jonn nga del siwaat nag toog taaya kooku moom ñëpp maase na ci ne del si ga xam yaa ko tey moo xam da ngaa fàtte moo xam ni ko xamutoon ñoo ci yemoo du tee julli ga moom baax na ngay sujjóot rek baax na salaam dool ni moom nattam li woo ko mooy jóg nga àggoo ci taxaw jonn waaye dangaa del siwaat kooku daa am ñu wax ne sax del siwaat ga lu war la moo tax buñu toppee jooju wax moom ñëpp maase ci ne moom ndegam jotagul a am ci taxaw jom del siwaat rek moom julli ga baax na moo xam yaa ko tey moo xam ñàkk xam a tax moo xam na ngaa fàtte ci des nag mooy wa in yëkkun dem dafa nekk bax da xiyaami ci gannaaw jóg ga ba taxaw jonn mutalaxan ak lu mu mën di doon saxaat ku ne wér na salaatuhoo julleem nga li say din ngir ndooleen wala ñeel ndooleen xoqi xalool dëggaleef na ko ñaar bi nag mooy dangaa jóg ba taxaw jonn loolu del si waat nag toog taaya boobu nag nee nañu bu fekkee fàttee tax nga del si waat toog taaya moom julli ga baax na ngay sujur rek baax na salaam waaye bu ñu toppee sax noonu moom day wax ne bu xasee taxaw jonn daa jàll rek warutoona del si toog di taaya kon bu ko defee ci ñàkk xam ba ci tey moom julli ga day yàqu ci boo toppee sax noonu waaye daa mel ne waxee nii ci yax bi moom moom yaar yëpp yemoo bu ci mën doon boo di siwaatee toog taa du tax julli ga yàqu wa man nafaxa ku wal li sax wi ngir juum fi salaat ci biirub julli sajada kon mu sujjóot min ba adi salaam yi ci gannaaw sëlmal yaa axal yow mbokk dafa wax ne nag boo dee julli ëf ak sa gimiñ dañ koy jàppe ndolleen moog wax te tëyoo ko ñooye moo ko defee nga sujjóot pax de salaam mooy rek ëf nga ak sa gimiñ waaye njuumte rek a tax tey taxul nga def ko de wa in yakun dem dana nekk xaamida dal mazkuri di aji tey lii la ñu tudd tabatul kon yàqu salaatuhu julleem nga xalal mashhuri ci lañu siiwee su fekkee da julli ëf ak sa gimiñ te yaa ko tey booba julli gën a yàqu moog nga julli wax te tey ko lay ñamale xanwetu jublu naa nag bil fam ci gimiñ wa in min anfin dem ci bakkan la fala sujjóoda déet sujjóot fii ci nekk ci moom duuna xul hin ci dul genn wuute maanaam ëf ak sa gimiñ kat dañ wax atte boobu ne boo ko tayee julli nga yàqu boo ko tayut nga sujjóot ba xam waaye ëf maanaam wal ak sa bakkan moom du wàññi dara wa in xatasta ndéem dis li nga fii salaatika ci sam julli fala tastaxilan kon bul soxlawoo bilhamdi ci sant yàlla yaaman yow mi nga xam ne xàq la xelu na xam nga boo tislee dañoo sopp nga sant yàlla ne alhamdulilahi rabbil alamin mu ne waaye nag bu fekkee da nga julli moom boo tislee itam bul wax alhamdulilahi rabbil alamin wéyal rek ci julli gi wala tarut danna te bul delloo xalaaman ci ka nga xam ne chammataka ndokkeel na la boo santee ba am ko jékki-jékki defe ne sant nga mu daal lay wax la su boobaa bul ko delloo naa ko yahdikumullahu wa yuslihu baalakum mbaa yaxfirullahu lana walakum déedéet kookee la ndokkeel bul ko delloo dara dara wéyal rek ci julli gi wala tushamit te bul ndokkeel xaadisan aji di sili bi yarxamuka ci yarxamukallah ba tey nag boo dee julli keneen tisli ku bokkut ak yow kon yow bul ko wax yarxamukallah kooku nee ñu moo gën a diis maanaam boo dee julli sa julli bopp moo nga ànd kenn ñooye moo keneen tis keneen tisli nag yow nga wax ko yarxamukallah am ñu ne bu fekkee yaa tey sa julli day yàqu léegi dañ koy yàpp mel na ngaa wax bu fekkee da ngaa na nag moom du yàqu mu ne nag laakin na ba park waaye giléeg bàyyi xalaa nadd bi nekk na ci sopp wala chey di dara xalaa man di war ka nga xam ne xat faxala def na ngay raxoolu ko ak moom li mu waxan ne boo de julli boo dislee bul wax alhamdulilah dañoo sopp rek bañ ngaa wax alhamdulilah waaye nee na boo ko waxan du tax julli nga yàqu mu ne itam bu la kenn la yarhamukallah bul ko delloo naa ko yahdikumullah ak yu demee noonu ba tey loolu dañ koy sopp rek bu la kenn dokkee loolu nga wax ko yahdikumullah mbaa yaxfirullahu lana wala kum itam du tax mu wàññi dala la xaw a diis daal moom laa waxoon léegi mooy da ngay julli keneen tifli yow nga ndokkeel ko yarhamukallah moom daal nasaraaya waxee daa mel ne soo ko tayee julli gi day yàqu wa inta saa wapta ndéem belbeli nga la daa salaatika fa sa julli fa sudda na nga sakk fabaka sa gimiñ axiya sama mbokk bi yeddi ko ci sa loxo yene boo dee julli di belbeli bul bàyyi sa gimiñ rek mu ubbi ko nga jël sa loxo daal koy sakkee sa gimiñ mooy jël sa teg ko ci sa gimiñ dañu ko di wal di wan fus na nga tifli ida nafasta ndéem nam ngaa tifli fi saw bi ca balaan ma bilaa ixraaji xarfin ci dul génne aw araf fa tubbati ba nga yàq salaatan julli nee na boo dee julli lor yu bari sa gimiñ mën nga ko yàbbi ndànk ci sa yéere ndax lor yi du sobe su ko defee nga bañ caa boole génne araf ki boo nee tëf ca tifli moom dañ koy jàpp wax julli daal di bëgg a yàqu waaye nag boo yàbbee rek lor yi noonu te waxaale wu wenn araf ni ki tëf mbaa yi noonu kon julli gi du yàqu boo dee xool nag fañ koy saraa ca laxdar yi moom da koy delloo ci bilbili ga wane ne des na def boo bilbilee ba noppi nga wal ndànk lor yu tuutee tuuti génn am ñu koy def da ko aaye foofu na wane ne moom boo bilbilee itam doo saña ëf ndànk-ndànk a doo saña wal ndànk-ndànk ay lor yu tuuti génn waaye li sëñ bi waxee fii te moom bokk na ci ñëw ci téere yi mooy boo bëggee tifli daal mën ngaa tifli ci say yére yaa bi lor ya ndànk-ndànk te bañ a génne wenn araf nag wa man tafakkara ku xalaat xalilan tuuti li xadas ngir am toj aw najasin wala sobe xad di sàkk su sikki sàkk na fii ci moom wa baax sa te mu gëstu ku ay xana te wóolu baax du ci gannaaw ba ak taxaarata laab wala chedi dara xale yi di ko war bittifaaqi nubala ci dëppoog way xellu nee na boo ba yàgg ngay xalaat ba xam mbaaw ah man tëj ñëwu ma waaye ndax wér naag laab mbaa ndax sobi nekkul ci sama yéene mbaa sama yaram mbaa fi may jullee bu fekkee ne yàggut ca gannaaw ba nga am ci lu wóor ne jàpp mbaa sobi nekkul ci yow kon diir boobu nga sikki sàkka du wàññi dara du yàq dara ci julli ga boo ko dee xool nag niñ ko indee ci saraab al axdar yi moom day yombal mbir ma lool wax ni daal moom boo xësee ba tàmbalee julli te xel yaar nag ci sama njàpp tojoon na am tojutoon mbaa ndax sobee ngi ci man am sobee nekkul ci man moom daal nee na moom daal wéyal ci julli ga rek lu yàgg yàgg yàgg moom boo jullee bu sëlmal gannaaw ba nga am ci lu wóor ne moom booba amoon nga laab rek mbaa sobee nekkutoon ci yow rek kon julli ga daal nay baax bu fekkee amaatoo ci lu wër rek ngay door a julli waaye yàgg ak bañ ci yem doonte julli gi yëpp yaa ngi sikk sàkk noonu waaye gannaaw am nga ci lu wër ne boobu amee woon ngam jàpp rek te yore woon sobe rek kon julli nga baax na ba bis li saa kéem kii la fi na ko mi ci àtte man ka nga xam ne xat yil dafa te gestu na la daa salaati yi fa julleem nga li sax yu ngir njuumte xat sabate ba sax na ba tey nee na boo doon julli gestu ci wet ndeyjoor mbaa wetu càmmoñ waaye na njuumte rek tax kon ba tey dara nekku ca njuumtee tax dara nekku ci bu fekkoon ne juumoo woon yaa ko tey moom dañ koy sib du tax dara nekk ca maanaam du dara la ci war waaye dañ koy sib ndax tey ka ba tax mën naa na am dafa waaye tayam nga yoo xam du def na ko lim makruuhun muy lu ñu sib la daa mën fa ka nga xam ne xalima xam na kama taqaddama nag mu jiitoo woon su fekkee ne yaa ko tey di julli gestu kon def nga lu ñu sib bu fekkee teyoo ko dangaa juum rek nag kon kenn siwu ko ak yi di am nag moom julli gers moom dara waru ci sujjóot mbaa dara amal lës yi daal ki nga xam ne istad bara war na gannaaw xiblatan xibla la daal saafel yi pal yu ant na baamu tilka salaatu googee julli abadan faaw nee nag bu fekkee yemoo ci gestu ci ndeyjoor mbaa càmmoñ waaye dangaa wëlbatiku ba say tànk wañar diku wan xibla gannaaw saa yoo ba say tànk sax jëmatul xibla nag kon julli nga yàqu la kon na ngay baamuwaat julli googa wa man yusalli ku jullee bi xaririn ci sooy aw nazara wala mu xool mu xaramu luñu araamal a xool faqad xasaa kon noy na rabbal bashari borom bi ndee fi laakin waaye salaatuhu julleem nga saxiixatun aji wér la daa wax ne kuy julli sol yére yu araama sol ni ki yére yu sooy sooy daañu ko wax suwaa waaye nee nañu nag sooy ba ñuy wax mooy sooy piir ba nga xam ne cosaan la bokkiwul ak sooy bi nga xam ne moo xew léegi maanaam bokkut ak soowaa bi nga xam ne moom nga miin ci démoy rek mu bari lool ku julli sol lu araama sol daal moo xam sooy la moo xam wurus la ndax yonante bi daa waxan ne sunu boroom daa araamal ci ñi nekk góor ci sama xeet sooy ak wurus ba noppi nag daganal ko ci ñi nekk jigéen ci sama xeet ku julli nag sol lu mel noonu mbaa mu takk wurus ci góor ñi jëmmi julli ga ci boppam wér na di tax ñu wax ko ne ko mbaa mu waatal mbaa dara waaye nag bu ko tayee ba noppi léegi def ko mën naa am suñu boroom bañ koo nangul julli ga ndax xam la mu xam ne loolee lu araam la te teewul mu songu def ko kazaliki ni saariqu shay'in aji sàcc dara fii salaat ci julleem nga xusan na ko jàpp ba tey kuy julli sàcc ci biir julli ga mel ne tafu kam dendal sàcc yëfam ba tey jëmmi julleem moom mi sàcc teewu ko wér mooy kenn du ko julliloo waat waaye nag bu dee ci wàllu ñi toppatoo tasawuf dañuy jàpp ne kooku moom ca dëgg-dëgg julliwut maanaam julli ga moom du ci am dara ci tuyaaba waaye nag bu dee ci shari'a rek moom ci fiq dañuy jàpp ne julli ga wér na kenn du ko julliloo waat wala tas jut na nga sujjóot albaad yo sujjóotu baax in xalit tandeem juum nga fii xiraat ci jàng ta yi ba dana dikk min xëyri quraan di bokk ci ludul al quraan bi kilimatin ci ab waat waahidatin bu di benn nee na julli ba ngay jàng na nga juum ba tudd baat boo xam ne bokkul ci alquran nga dugal ko ci njàng ma kon dañ koy jàppe ndol leen nga sujjoot bax de salaam wa in takun dem dana nekk nag moom baat ba minhu di bokk ci alquran fala sujjooda kon dir sujjoot di war ci ndaman fakk nga xam ne fàttu na xelu na laakin waaye nag isa xayyara ndem soppi na lafzan baat xadd xulima bopp xameef na ko aw afsada wala mu na almaxnaa maxnaa ma fa baax di yoon kon sujootu bax de salaam lazima war na nee na bu fekkee da ngaa juum ca ba ngay jàng nag ba tuddaale ab baat boo xam ne dëkkul foofa waaye nag ci alquran la bokk te it boo ko dee seet yàqoo yàqu baat ba yàqoo itam maska ya nga xam ne kon moom daal amul dara lu ca sikk kon nee na du aajowoo sujjóot bax de salaam bu fekkee nag baat boobu ci alxuraan la waaye dangaa soppi yax ba mbaa nanga ko maase ku ko firee noona max naa ma yàqu kon na nga sujjóot bax de salaam mu doonu xaasim boroomu gëmeentu fi salaat ci biirum julli laa sujjóot di sujjóot xaali yi di ko wax in ndem nekk nag xafifan di aji woyof yaa muridan yi optaalu bi nee na boo dee julli nag xaw a gëmmeentu ba xaw a nelawaale waaye nag teewut du yëngutu rek nga yëg ko kon moom nelaw woyof la kon baax na dara sikku ci julli ga laakin waaye isa saqula ndem diis na naw mu koo nelawam ya ahan damu baamu salaata koo julleem nga ma xal mu doy ànd ak njàpp ma rum sàkkul rachaadan njub bu fekkee nga julli nag nelaw nelaw yu diis mooy nelaw yoo xam ne mujj na xamatoo foo nekk nga xam ne li nga sa loxo bu rotee doo ko yëg ku wax kàddu gu xumb doo ko dégg te nelaw yu diis la su boobaa kon njàpp ma yàqu na julli nga yàqu na faaw da ngay jàppaat julliwaat waxatafaroo jéggali nañu al andina binni lil maridi ñel aji tawat waxtu salaat ci waxtu julleem wa ihfadan na nga wattu xaridi sama way wi nee na boo tawatee di binni ak wonk loolu xaw naa nur wax waaye du tee ñu jéggal la ko nag du wàññi dara kon tawat tawat ci tax muy wonk ba muy bind daal du wàññi dara wa misluhu am kemam la te ndax nuhun xaddamiku li darari ngir lor ba tey bu fekkee dangay ngay julli di xaddamiku waaye xaddamiku ba ngànta tax rawante nag bu fekkee ne da ngaa tudd baat ya ndax sa baat daa fot nga xaddamiku nag ngir mën a wax loolu dara nekku ca te sax ngir nga mën wax baat yi moom xaddamiku ko lu war lay doon ndax fot ga sa baat fotoon dañ amma lil ifhaami ndaal ngir xamle ga ndaal ngir dégg li nga dégg li nga mooy xamle ga rek fa xameef na ko makruhan muy lu ñu sipp bu dee xaddamiku goo xam ne daal da nga caa bëgg a xamle ni ki ngay jullee ci néeg bi néeg bi am kuy bëgg a dugg ngay xaddamiku di ko wan ne ko maa ngi julli ci ne bi kat bul dal ci sa kaw bul dal ci sama kaw mbaa am kuy fëgg ak yooyu ci bunt bi nga xaddami ko di ko wan ne ko ah damay julli kat moo tax mënuma laa wax jàll sin xam ne kon saa yoo xam ne xaddami ko ba daal moom xamle lañ ci jublu su boobaa daañu ko sin du tax nag mu yàq julli nga du tax su jot war ca bokkul waxal li ma ñeer nga xam ne sabbaha sabbal na li ñu daay ngir woote ne ko faxalta def nga makk lu ñu sib bilam ci daañ ci lu werante laakin waaye salaatuhoo julleem nga saxiixatun aji wér la falaa yu maru def ko digal bi sujoori ci sujoor yaaman yow mi nga xam ne xàqala xellu na nee bu fekkee da ngay julli nag am ku lay woo nga daal di wax subhanallah wan ko ne ko julli gee tax kat mënuma laa wuyu xam ne subhanallah mooy sa wuyu nee nañu kon def nga lu ñu rek waaye du tee julli ga moom baax te it du jar ngay sujjóot wa in waqafta ndem gàgg nga fil xiraati ci jàng ga walam yaftax te gàggantiwut xaleyka ci yow yaa xamim ya yow sama xarit arimun kenn fatruk bàyyil aayatan aaya waqafta joj gàggi nga min xaa ca moom isan boobee su maqara an topp nga jàng maa laaya ja nga xam ne ba andaxaa nekk na ci gannaawam di tam fuusa ngir nga wéy nee na boo dee ba yàgg nga gàgg te kenn gàggantiwu la da ngay bàyyi laaye ja nga gàggee tëb ku jàll ba ci kanam ba xam da nga mën a wéyam déet sax ni doo ngay daal di def buñu dee tari te ba gàgg deltuwaat ci gannaaw ngir mën a jàll déedéet daa bëgg rek laaye ja nga gàggee nga bàyyi ko tëb ko jàll ci kanam jubluwut nag nga del ci gannaaw jubluwut nga del ci gannaaw di ñëw di ñëw ba ci moom ngir nga mën a jàll déedéet kon daal boo dee jàng rek ba nga gàgg te kenn gàggantiwu la man ngaa tëb fa nga jàll ci kanam ngir nga mën a jàll fa in taxan dara ndem gàntal na xale ka ci yow farkaxan nagaru ko laa dandru bul dem di xooli almushaf ab kaamil yi ne waqaxa ci waxtoom xewee waxtoom tàbbee muy waxtoom xewee rek nee na boo gaagee nag jéem jéem a jàll mën laa jàll sooy boo fara yemale foofu njàng ma daal di ru ko jëru ngay xool ab kaamil mbaa dara waaye nag loolu aajo wana naa teqale mooy laakin na dat tasxiila waaye gileeg jàppandal wala musaamaxata ak gile tabe yeggoon dana am rek mooy dana nekk fi suurat ci saar wa xëyril fatihati waaye waxuñu fatiha waaw bu ñu nee boo gagee te gisoo ku la gàgganti nga jéem-jéem a jàll mën laa jàll saye boo far rukkoo ne loolu kat bu dee saar waa tax te xam nga saar yu moom sunna rek la te boo xasee tàmbali saar yu rek sunna si am na mot li saar wa dañ ko sopp rek kon nag bu dee saar wa boo gàggee te mën laa jàll say boo far yemale koo fa saar wa de rukkoo waaye bu fekkoon ne day faatiha ja moom nga war ko àggale ndax jàng faatiha moom farata la ba tax mu naa lakinnaha waaye moom faatiha ikmaaluha matalam nga yudaa def na ko gis xat man muy aji war bi mushafin boo xam ci ab kaamil la aw xëy di ci mbaalu dul moom bilam tiraa ci lu werante fekkee ngaa gàgg ci fatiha moom faaw war ngaa fexe ba gàggantiku bu amee ku la gàgganti baax na bu amee kaamil bu dend yow mbaa nga mën dox ba ca kanam ciim kaamil ba xool ca loolu lépp baax na waaye àggale fatiha ja moom mënta ñàkk nga ne ko waaw bu fekkee ne gàgg naa ci fatiha gisuma ma gàgganti te gisuma kaamil bu ma ko xoolee nga xam ne kon am na lu ma bàyyi ci fatiha jànguma ko nu may def ate baa ngi wa in tarakta ndem bàyyi nga aayatan laaya min xaaja fatiha ja wala mu yumkin te jàpp ndiwut te laafin ak dabaatal fas jit kon nga sujjoot alxabli yi sujjoot bu xabla na am waaw nee na bu fekkee ne nga tag nga ci fatiha mën laa jàll amoo mel ni pexe kon dañuy seet ba xam bu fekkee jan laay rek nga bàyyi joo xam ne jàngoo ko ci fatiha ji kon baax na da ngay sujjoot rek xabla salaam xabla salaam ba wecc jan laay ja nga bàyyi ci fatiha ja nde way tracta ndem bàyyi nga maa loo xam ne yekkoon dana nekk ak sala di gën a bari min xaa ci jenn laaye moom la butlaanu salaatika yàqu sa julli yi daa def na ko gis su fekkee ne da ngaa gas ci fatiha gisoo ku la gàgganti gisoo foo ko xoole ba tax nga bàyyi ca fatiha ji lu ëpp jenn yoo xam ne jàngoo ko su boobaa mu kon julli ga day yàqu nga fexe nag ba mën a àggale fatiha ji daal di julliwaat wa man fataha ku gàgganti xalaa xayri imaamihi ci kudul ilimaanam fa batalat kon yàqu na salaatuhu julleem nga xalal asax ci wax ji a wér nee na boo dee julli di gàgganti keneen koo xam du sa ilimaan sa ilimaan daañ ko wax léegi waaye ngay julli xam ku de denda yow di julli jotewu leen dara mu gàgg na nga gàgganti ko su boobaa sa julli yàqu na ndax da ngaa mel ne ku wax ak moom laa taftaxan bul gàgganti xalal imaam yi ci ilimaan ba qabla an yatlubahu ci njëkk mu koy sàkku aw yufsida wala mu yàq al maxnaa maxnaa ma tuxan kon def na la dimbale sa ilimaan sax nee na bala nga ko gàgganti da lay wóor ne aajo woon koo gàgganti boo seetloo ne aajo woon koo gàgganti mooy tax nga sañ koo gàgganti mbaa a wax ja na ko waxee moom ko defiree rek du doon noona su boobaa kon say ba gàgganti ko wax ko nam doon waaye bu bu fekkee ne seen duut koo gàgganti yàqul maanaam ma yàqu guy réwér kon bul ko gàggante bu dee faati ji moom saye ba gàggante ko ndax ne nga woon mënta ñàkk waaye dagam la moom maanaam bu dee saarwa moom boo gisee ne mi ngi négalik koo gàggante mën nga ko gàggante bu fekkee ne yàq na itam noonu mën nga koo leeral nam doon wa in qad ajaltu nde wëndeel nga alfikra xalaat ga xalilan tuuti fii amri yàq ci birum sa àdduna naqasta kon wàññi nga al ajra yool ba li ànd xoo na naka moom yu xaddu def na ko lim makkarooxan muy lu ñu sib balaa yakun du nekk mobbtu leen di aji yàq isaama xulli la ndéem néewa leef na ko nee boo dee julli di wëndeel say xalaat ci àdduna kon yaa ngi def lu ñu sib te it la nga teewlu kese lañ lay bindal tuyaaba waaye la xam ne am maanaam daal la nga xam ne teewlu ko moom kenn du la ca dara dara kon nag di julli di xalaat ci biir àdduna lu ñu sib la waxal na ko ci gannaaw la ko yàq nag mooy xalaat yee baree baree bare ba nga xam ne xamatoo dara dara dara ci julli ga loolu moom boo ko defee rek julli gi yàqu na nga tàmbaliwaat ko waaye li fekk yaa ngi xam nag ci julli ga dara moom